ma wax ni bu faatoo ba am juróom benn weer maa ciy tegu man moo ma ko wax bilisaaniha keroog bi ma koy wax sax maa ngi ko naan xam naa ñàkkul ni xaal bee ko dikkaloon tax mu lay wax waaye moom soxna asiyatu booba am na lu ko yàlla xamal moom mu am lu mu yëg ci yaramam ba yàlla dogal keroog bi muy mujjee waxanteeg papaam Serigne Maodo ak maam Alfasi man maa ko paas téléphone bi mm. mu wax ak ñoom mm-hmm. waaye ndeke booba du génn semaine booba woo doomam mm-hmm. di soxna umul xayri bi mu am ak sëriñ Moustapha bu Serigne Cheikh waaw ni ko dama bëgg nga ñëw bindal ma sama testament mm-hmm. ndax sama papa li ma waxoon bi jot na te fi mu li may gis fan yi xam naa ni faaw damay jege ñi ca la ko binduloo nag ni ko li ma lay njëkk dénk mooy fondation Mame Fawade Wellé bii dama tëddoon maam faawaat di feeñu ma mhm. ma xëy sàggane gis gi ma ko gisoon mhm. ci biir semaine bi mu feeñuwaat ma ni ma xanaa xamoon ni man la sa maam faawaat sama liggéey laa bëgg nga waneel ma ko ba jigéen ñi mën a roy li ñu war a def ci seen digganteeg seen borom kër yi ak ci seen diine ndax réew maa ngi yàqu soxna si mhm. ñëw waxtaan ceeg papaam Serigne Mansour Serigne Mansour ne ko nag na nga dem ci sa papa Abdoul Aziz nga waxtaan ak moom ndax du ma jiital nit ba noppi di ko fa kastal bi mu demee waxtaan ak moom mhm. papaam Abdoul Aziz daal koy wax ne ko kat lii lu waroon a am bu yàgg la ba faf mag ñi di leen feemi di leen ko wax kon lii li ma lay ñaan demal ci Serigne Babacar Sy Mansour sa papa ki nga xam ne tey mooy xalifa bi tey mhm. booba nekkagul xalifa soo demee nga waxtaan ci ak moom ba mu fa jógee seeti na it papaam maam Alfa comme moom lañuy ñuy dénk wu lépp lu jëm ci waalo. waaw gannaaw ba seeti na papaam Maodo ak xadar bi ñëpp. Mhm. bi mu wàññi ko nag sëñ Abdou ni ko comme ñoom ñëpp waxtaan nga ci ak moom danañ ko wéyal te danaa ko taxawee. sëñ Abdou taxawee na ko juróom-ñetti at ca Dakar. juróom-ñeenteel bi war a am nag yàlla ko ñoom ñëpp yàlla moom leen. boobaag léegi ñu ngi ci fukki at. Mhm. kàddu ga mu waxoon nag ñoom bi ñu demee waxtaan ak xalifa bi mm-hmm. xalifa bi ni leen li sëñ Abdou waxoon nan ko matal ndax du nu woon ginnaaw rek ñu di ko wor jël lépp teg ci waxoon maam alfasi mm-hmm. ñi di ko doxal dem nan waalo dem nañ fépp njër ba gaañ yi boqal ndàmbu cile mm-hmm. fépp foo xam ni samaam amoon na ko ci waalo def nañ fi ay tournée def nañ ko ci ay film pour nit ñi mën ci jàngaat lan la samaam doon liggéey euh, ndax wan naa leen muntu ak faxam yi nga xam ni mhm. ñoo jógee Arabie Saoudia mhm. di màng di dox ba ñëw Égypte jóge fa mhm. ñëw empire du Ghana ba jóge fa ñëw Walata ñëw Singiti ñëw Waadaan ba keroog ngi ñuy ñëw xoomaat ba ñëw dëkk bi ñuy wax dëw faal mu ngi ci ginnaaw gaaya ci la ñu jéggi doog a ñëw gaaya sanc ko ñu tuddee foofu gaaya muntu ak faxa moomu nag ñom ñom meññ ku ñi wax abdullah al Ansari. waaw abdullah al Ansari nag moo denc mintul xayri. am ca Fatimatul Ansar ak Roqaytul Ansar. Fatimatul Ansar nak la abdurrahman Fay denc am ci mam Bote Fay. waaye nag dafa siwé Bote Fay mais Fatimatu Bintu la ñu yakatu ri mais Fatimatu Bintu Fay la. di doomu abdurrahman Fay. ci walu nak ñom dañu xaw leeg di yakatu waaw. surnom boobu nag mm-hmm. moo tax ñu naan bote fay waaye Faatumatu bintu la <laughs> moom moomu nag mm-hmm. yàlla dogal maam Babacar wele denc ko waaw am ca faawaat di wele ak alpha ma yore wele nii la sa silsila maam tëddee ba yàlla dogal sa maam Seydi Hadji Malick génn ca ndax sa maam faawaat da ñetti bant rek la am fantañang mooy taawam moo jur ndumbe faal ak wulimata faal mm-hmm. ak Serigne Cheybatu faal yàlla dogal nag maam Abdou Boli moo topp ci maam Fanta Niang mhm. Abdou Boli mhm. moo jur Malick Aïcha Awa euh, dafa njaboot lool nag moo ci gën a njaboot ndax Malick Aïcha mii mu jur mhm. moom la ñu mayoon soxna Zeynabu Sarr bi soxna Astu si denc waaw mu bokk ak ñoom Abdou Karim Sarr ak Saliou Sarr Abdourahmane Sarr ndey ak baay mu jur ñoom maam Faama ñoo ñooñu sant Fall tey dëkk ci Louga waaw ñooñu Malick ay moo leen jur mu jur Aline Fall Abdou Boli Aline Fall moo jur ñoom Maguette Diop waaw bii nga xam ni tey ñoo sës rëkk ci sa réew yi maam Alaaji Maalik bii foofa la bàyyi ko moom nag maam Abdou Boli bàmmeela ma nga Tiwaawan samaam Seydi Hadji moo ca tegu mm-hmm. dim caat mm-hmm. moom moomu nag gannaaw ba mu dencee samaam Roqaya Njaay mm-hmm. jóge fa denc samaam Sufeetu Ñaŋ denc samaam Ummu Xayri Yaasin ndax moom mooy ñaareelu Alaaji ñu bari dañu foog ne maam Sufeetu ndax samaam sa maam euh, euh, euh, Yaasin Dieng yàlla dafa dogal bi mu juddoo la samaam Moor Masamba Jéeri takkal ca sagar alaaji Mali ne ko kii may naa la ko ba mu matee dugg néegu sëy nag la mottali yéene ba fekk na booba maam sa fiitu dugg na lii moo waral ba yàlla dogal mu am ca umu xayri yaasin ak ayda yaasin ak Ousmane ak Cheikh Tidiane ñu jël ayda jox ko sa papa mu meññi leen yéen ñii kon tey ji ku tudd faa wàddi wele faaw mu tudd leen loolu nag nga moom mbir mi ci biir moom ko ci biti tax sëriñ bi ne ma nag yaa ma doy ci yoon wi ndax it nga mën a mottali mébét ndax góor gi jamono yële mm-hmm. déglu na la ci télé ba bég nag xam naa nga dem àgg fa mu gis te it doon na ci am solo loolu nag mooy tànk yi euh, di la jéggulu it di la baalu xaq ndax waruñu fi jóg xeeñtu say njeexit moo tax ma jël sama doom ji yóbbu ko ci Abdourahmane Touré mu nekk foofa moom ak ñeneen di la seedeel ni Abdourahmane Touré yit mm-hmm. ñu ngi koy gërëm mm-hmm. te ku la bàyyi xel la moom ak ñoom Baye Malick tabaarakallahu bu nu amul woon ca Tiwaawan mm-hmm. dana niru leneen du def dara mm-hmm. te waxuta ay bokkam waaye lu mu ciy wax it dane damay bañ sama papa dégg ñàngam wala leneen ba bëri ci démb daje ba mu fa doon mujj di def yooyu yëpp man mii maa ci jël en charge taxaw ca mhm. maag parents d'élèves ngir di ko jàppale ndax bu dul woon teeg loolu sunu doom yëpp fii la jëm si ñu ngi lay ñaanal yàlla nag wér ak gudd fan di xamal ni mhm. sa ndongo la eh, di sa sang di maam alfasi mm-hmm. mu ngi lay jox kàddu yu nuyoo yu kawe kawe bàyyi ca xalifa ba wàcc ci njaboot ga tey lii nag sa doom mm-hmm. di soxna umu xayri si bu soxna asiyatu mhm. moom la ñu jël lépp ñu teg ko ci loxo mu jiite ko mhm. ndax yaayam a ko yoroon mhm, loolu nag moom la ñu wéyal ñoom ñu continuer nekk ci nii ak nu ñu nit ñuy ay njaboot di ay taalibe di tàllal sunuy loxo nga ñaanal nu sunu tarbiya ak sunu taalibe ci biir kër gi ñu bañ a gis sunu bopp ci li ñuy liggéey su ma defee li ci des والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما شاء الله كنت أقول لول لول والله يتبع. من بدي لير السلسلة بي أبوكي. من ده نيخ من لول. والله يتبع. لما تخم ما تعود كل خلي أيون أيون. والله. ما بعرف أنا ما مسمى سبب سدية. والله يتبع. من لب لبوك جوا على جمالي. رب الله. ولا أبصين لا كلنا. دقيقة. أنا وحنا تبعون. جناري الخري جناري الخري تقسم السدية. والله والله. والله فيكم سبب جابكم. te man tam loolu laa mhm. moo tax seen tànk yi kontaan naa ci ay yoon. wallaay kontaan naa ci ndax fa ngeen jóge mhm. ñooy suñuy sëriñ di suñuy wasiila. Mhm. waaye itam kontaan naa ci ngir bokk gi. waaw maam man benn yoon laa mos a dem gaa yi. ndeysaan boobu damaa demoon Mauritanie. ñoom laa mos a dem Mouride ne mi génn doo barul waaw bu defee mandaar faaw ma dem gars yi siyaare sama maam boobu daa fa gëj yàgg na mm. lool wala ay 1974 waaye nag waxtaan yi ngay def ci ci télé bi moom muy teel ma lool lool moo tax ma seen yoon yi kontaan naa ci bu baax mu ne ngeen jotti li ma xalifa ba jotti lu maam Alpha sama kontaan ci seen yoon kontaan nañ ci lool ñoo ngi ñaan sunu ko amiin amiin yàlla ci yàlla def barke من امين امين امين بارك بمام ما ما فواد ام بتخسيد الحاج مالك سيد رضي الله جوجي مو بارك بتي مام الفا ما يرى يلا بلا بيسين آه، فونداسيون امين تبي امين تبي يلا بلا بيسين فونداسيون امين تبي امين امين تبا بمي بمي تنك سلسله def na xarit kay ma wax la samay maam yi ko maam mel noonu sañ leen a way xëy na kaay bi ma wax laa ci askanu laa ci askanu leer laa juddu bis ni tey ci Maodo. Mhm. nijaayam. Mhm. nijaayam mooy maa alfa. Mhm. waaw maa alfa. Eh, borom xeej yi a Machawul Fouti. Ghali. ci xalal waay loolu mooy silsile bi. waaye daal eh, kontaan مدام جوف اهلا والله يمكنك ان شاء الله تحوادي مثل السك يا كان نعم، يا نيح لول لول لول بقزيك يا إيه. امين بقزيك يا درسيك والله يتري بقزيك ما متى أمم. درسيك ان شاء الله يا امين امين نونكو نعم، نيادل دلين نيادل يين يب امين امين يلا تقل لخو بوبم فونداسيون بي الله امين انك يا تقل لخو بوبم فونداسيون امين امين كنت باك بوك دا فري دغلا تاك بوك دا فا نيه واو أمم. من او ما شافو جاسو نين ولا ما خم نين ci ñi sant wala te ñuy samay mbokk. dëgg la dëgg moo tax lii ma kontaan ci. wallaay ture wallaay ture loolu yàlla kontaan. amiin waay ture amiin bi réer fi man lool. wallaay ture seen yoon wi tam réer fi man lool. wallaay ture ndey as bu ma démb rek jot naa ko. ndey as bu ma démb rek. man dama laa mere ndax dama laa woo gisuma la mu ne ko bu ma mere dama ko yëgul rek mu ne ko dama ko yëgul rek moo mere waaw waaw alhamdulilah waaye daal yoon yi bëgg naa ci lool fondation bi moom wax dëgg yàlla jokk bokk la dimbali ay miskin ni ngi si waaye jokk bokk la te yoon bi rek war na leen a jokk bokk la fu bokk ne ngeen loqati ko dem fa loolu rëy na lool yonent bi daa wax na sallallahu alayhi wa sallam taallamu min ansaabikum tasiluuna bihi arhamakum mm-hmm. waaw jàng leen ci seenu askan mm-hmm. luy tax ngir mën a jokk seenu bokk mm-hmm. تجوكو بوكو القران دكي ديكي الذين يصلون ما امر الله به ان يصل دين ديك اجنا الذين يقطعون ما امر امر الله به ان يصل الذين ديك سفع سوق الدار ما تصير سير يوان دار ابنا كي مت ابنا كي كون جوكو ген بوك كون تاب لون كان من كون تاب لون ديال الله كون تاب لون ديال الله ما شاء الله نفس سما خريج والله والله مو بلفو بك دينا Mm-hmm. bu ma ñëwee Thiaw maa ngi fa ñëwoon ci bi ñuy bëgg a bëgg a mm-hmm. waaye tànk bi li muy métti métti. Mm-hmm. dafa ñu seet si ma ne ko yow waroo woon a jóg. tànk bi ñu ngi ko tabax bi waaye daal dafa teewul dafa ñëw. waaw ah, waaw yal na ko yàlla def mag moo am yiw. amiin kon bu ko attan. amiin kon yéen def ci moom barke ay maamu. amiin amiin amiin kon kan maa xam nga ne ñu soxna Oumou. incha allah danañ ko ko di ko ndokkeel. incha allah di ko encouragé bu baax. Mhm. di ko xamal ne daal ginnaaw mu ngi ci ndigalal yaayam. Mhm. ne ci ndigalal maamam. Mhm. nekk ci ndigalal mag ñi. ñaxalam daal incha allah. incha allah amiin amiin incha allah amiin incha allah. donc wax bu baax El Hadj Alpha it moom sunu sëriñ sunu xarit. wallaay wallaay moom dañuy coow naan gaañ gaañ <laughs> su ma ko nee sama sëriñ mu ne ma sama sëriñ. wallaay waaye tam sama papa ak El Hadj Abdou noonu lañ daan def. wallaay bi Moussa Diop sama papa du dangoo jiite El Hadj Abdou du dangoo jiite. cofeel ko woon nag moom moo am sama diggante ak maa alfa alhamdulilah yàlla sàmm amiin amiin amiin Touré daal jotaay yi moom kontaan naa ci yàlla ci yàlla kontaan amiin amiin incha allah amiin amiin amiin incha allah alhamdulilah alhamdulilah xam naa nañ la bañ a téye ndax waxtu timis bi nekk dugg dañu bëgg ñun àgg ci barab bi ziar incha allah ànd la ñoom jéem la ñu ñu ziar war nga dafa ñu def sama am haaji ak sama am ayda danga ko incha allah jërëjëf